dalati leen ak jàmm ci li gën a fés ci xibaar yi ci site internet bi dañu koy dooree altine juróom-ñetti fan ci weeru juin ginnaaw saytu gi nga xamante ni jëwriñ gi yor wàllum wér-gi-yaram ak action sociale mu ngi koy béral bés bu yàlla sàkk ñu ngay xamle nag ci limu ko 1010 tests yoo xamante ni ñu ngi ko doon amal 99 daal di nañuy dellu si amee doomu jàngoro gi ñu ngi xamle ni 88 yëpp ay cas contact yu ñu doon suivre la ci seen bërëbu fajukaay yi ñu ngi xamle ni deux yi ay cas importé yu bàyyee ko ca diwaanuk AIBD 9 nekk syndicat communautaire bisub tey ñuy xam ne ni réewub Sénégal li ko téeméer ak fukk ak benn daal di nañ leen di fàcc ba ñu wér ba fa yéenee génn ca kërub docteur waaye fukk ak ñeent ci ñoom saa sile tembe ñoo nekk ca réanimation ca cas grave ya ñu ngay xam ne nag ne ba fi mbas mi dooree ci réewum Sénégal ak léegi lim bi daal di nay àgg ci 4427 doomu aadama yoo xamante ne amee nañ doomu jàngoro gi waaye li mu ko 2699 faj nañ leen ba ñu wér ba njibbi ci seenub kër 49 ñàkk nañ ci seenu ko bakkan ñu ngay xam ne nag ne li ko junni junni ak juróom benn téeméer ak juróom ñett fukk ak juróom ñeent saa si la tembe ñoo tëdd ca lalu l'hôpital ya keneen koo xamante ni nag déggoon nañu ab feebaram rek ñeel mbas mi le du kenn ku dul ki fi nekk rakk njiitu réew mi di Aliou Sall nekk njiitu bokk moomeel bu Géejawaay moom mi nga xamante ni sax nag bu ñu sukkandikoo ci L'As Quotidien bi nga xamante ni nag ay jege ñaale maire bi rek ñoo ko daal di dénk seen i kàddu ñu ngay xam ne ne kii di meeru Géejawaay ba di Aliou Sall faj nañu ko ba mu daal di wér wér ca kër docteur ñuy saytu wàllum wér-gi-yaramam waaye nag ñu ngay xamle ni la ñu ca amoon rek ngir tiitaange saa si le tembe nag xel yépp daal dinay dal ndax kii di Aliou Sall daal dinay jotaat wàllum wér-gi-yaramam ba tey ñu daal di addu wax ci xibaar yi ginnaaw l'autopont bi nga xamante ni nag moo nekk ci diiwaanuk site kër góor gi dinañ ko jébbal askanu ko Sénégal bu ñu sukkandikoo ci kàddu yi nga xamante ni rek le quotidien économique bi di l'info moom la daal di joxe nag ne gën ni tey mu ngay xam ne dinañ ko jëfandikoo ci bépp juin gi ñu nekk fond boobee nga xamante ni sax nag la ñu ko defaree ak xayma gi rek soo dee xool daal nay àgg ci téeméer ak fanweer ak juróom ñaari milliards ci suñu ay koppar ñu seqi jéego jóge ci diiwaanuk ndakaar dem ca Touba Mbacké ca Touba Mbacké googee nga xamante ni nag ab mbir mu doy waar moo fa daal di am ndaxte rek dañaa jaawaatle nag ñaari néew ginnaaw bi nga xamante ne kenn koo xamante ni ñàkk na bakkanam ci mbas mi le ca waxtu boobee nag ginnaaw hôpital Matlaboul Fawzeyni daal di koy yóbbu nag fa nga xamante ni moo di ca sëg ya ca waxtu boobee nag laataa ñuy amal sang meek defar bi ca la ñu xoolee rek xam ni néew boobee nga xamante ni nag moom la ñu wax ne moom moo ñàkk bakkanam ci mbas mi wuute na loolu ak néew ba ñu leen jébbal mbir maa nga am ci dimanche gi la ñu génn bu ñu sukkandikoo ci source a waral na nag ba membre de famille bi nga xamante ni rek ñoom ñoo jege ki ci ñàkk bakkanam ñoom nag ñoo tere sapeur pompier yi ngir ñu daal di suula boobu leen néew ndaxte nag néew bi nga xamante leen wax ne moo di seen ëpp néew laataa ñu koy suur rek wan nañu leen ñu daal di koy xool ca waxtu boobee naka la ñu daal di daw ca morgue ba fekk fa seen ëpp néew ñu daal di koy yëkki defar ko ca na mu gën a dalee xel daal di koy jébbal seen ëpp boroom ba tey ci mbas mi sax ci la ñuy daal di desandi ndaxte nag am na benn woykat bu mag bu nekkee fii ci diwaanu ko Sénégal koo xamante ni nag way juróom bu góor daal di saytu wàllum wér-gi-yaramam fekk mu amee mbas moomee bu ñu sukkandikoo ci L'As Quotidien mu joxe boobule xibaar mu ngay xam ne nag ne woykat bi nga xamante ni ràññee nañ ko fii ci diwaanu Sénégal bàyyi ba moo daal di amee coronavirus ginnaaw bi nga xamante ni rek daal di nañu koy yóbbu fa nga xamante ni moo di ca kër docteur ngir saytu wàllum wér-gi-yaramam ca Liberté 6 ab mbir mu doy waar moo fa daal di am ginnaaw ab benn takk der di ab militaire boo xamante ni nag ab waa ju yor taxi di dawal ñu gën leen a xam ci taximaan moom nag moo daal di faat ab benn militaire rek laataa nga xamante ni nag militaire bi moo ngi nekkoon ci benn moto ca la taximaan boobee daal di dawee nag ba daal di koy kajji mu dal di ñàkk bakkanam sur le coup suñu sukkandikoo ci la tribune mi joxe boobule xibaar mbir ma nag mu nga xewee fa nga xamante ni rek moo di ca liberté 6 fu soriwul dara quand Leclerc bi suñu sukkandikoo nag ci yenn way takk der ya nga xamante ni ñoo fa nekkoon rek nee nañu taximaan bi la mu doon xelu moo daal di bari waral ba mu daal di àgg ci kaw kii di militaire ba ñu seqi jéego dem ci diiwaanu ko Brésil Brésil gi nga xamante ne nag ayu bis bi la ñu génn rek kii di Assane Diouf ab naataango sénégalais daal dina koy faat naataangoom boobee di wuyoo ci turu Bilal ginnaaw ba mu njortee rek ne dafa amoon ay relation sexuelle ñeel wàllum soxnaam waaye nag beneenu mbir bu doy waar moo fa daal di amaat beneen sénégalais ñàkkat fa bakkanam bu ñu sukkandikoo ci les échos yéenekaay mu ngay wuyoo ci turu Abdou Aziz Diallo am nga xamante ne nag mu nga doon yeewoo ca état woowee Parana saa si le tembe ci ab otoom la daal di defee ab l'accident bu metti ni ni samedi bi la ñu génn ba daal di ñàkk bakkanam ginnaaw bi nga xamante ne rek da doon xelu lu bari oto ba daal di def ab tënon ca waxtu boobee nag mu tourné laata oto bee dal ca suuf mu daal di ñàkk bakkanam ñu ngay xamle nag ci ay xibaar daal di ne néewam dinañ ko indi fii ci diwaanu ko Ndakaaru ngir ay mbokkam mën kaa jébbal suñu boroom ba tey ñu daal di des ci beneenu mbir ginnaaw États-Unis googee nga xamante ne nag kii di George daal di nañ ko fay fàtt ci anam bu ñaaw te ay takk der daal di def lu ni mel waral na nag ba saa sile tembe réewum Sénégal daal di na tekk tekkaaral ca googule mbir laata ay manifestation yu méttee métti doon am foofee ca diwaanuk États-Unis waral na ba Abdoul Mbaye Thierno Alassane Sall ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo di seeni naataango daal di ànd saa sile tembe nag li ñuy sàkku ci njiitu réew mi Macky Sall rek mooy mu daal di yëkki ay kàddoom daal di convoqué nak ki nga xamante ni moom moo di ambassadeur États-Unis bi nekkee ci diwaanuk Dakar daal ko koy wax ay quatre vérités ginnaaw na mu ko defee woon ak waa Grande-Bretagne ci ab reportage boo xamante ni daal dinañu koy publier mu ñeel wàllum BBC ginnaaw pétrole googee nga xamante ni ñu ngi ki doon tuumaal Alioune Sall di rakk ci réew mi Macky Sall ñoom nag ñu ngay jaarale ca Walf Quotidien di xamle rek ne saa si le tembe li njiitu réew mi war a def mooy daal di convoqué ambassadeur u États-Unis naqarlu bu baax a baax faat bakkan gi nga xamante ni faat nañ ko kii di George ba tey ci Louga la ñuy dem ginnaaw bi nga ñaari doomu aadama saa sile tembe daal di nañ leen di defeere bu ñu sukkandikoo ci ay xibaar yi nga xamante ni di yemboo ak ñetti fan ci weeru juin ca commune ba ñuy woowee Njaañ ca Njaañ googee nag gendarmerie bu Koki ca la daal di fekk ci bi 18h jotee waa jii di wuyoo ci turu Fallou Diop am ci lu tolloo ko 19 ans moor jaw am 38 ans ñoom nak ñuy daal di tux li nga xamante ni rek moom moo di ab yamba ca yamba googee nga xamante ni moom lañ doon tux ca leen patam patamee daal di leen di yóbbu fa nga xamante ni fa mbaxane doonee benn nag fekk nañ ci ñoom ay cornette yoo xamante ni nag njëg la boo ko xaymaa toll na ci quatre-vingt-neuf ca waxtu wi leen nag ñoom ñëpp daal dinañ leen di defeere nege ni démb ñu wax ci keneen koo xamante ni saa si la moo ngi taxaw jàkkaarloog ëttu attekaay bi du kenn ku dul Lamine Diack Lamine Diack mi nga xamante ni nag saa si la tembe moom moo fi nekkoon patron bu fédération internationale d'athlétisme ci atum 1999 jàpp 2015 ginnaaw altine juróom-ñetti fan ci weeru juin ca Paris nag mu ngi jàkkaarloo ak 32e chambre correctionnelle bi ngir rek wàllum ger waaye tamit wàlluma dopage bi nga xamante ne ñu ngi koy toppee kii di Lamine Diack ak doomam ji nga xamante ne moom moo di Massata Diack mi nga xamante ne dañ kaa jàppee lépp lu jëm ci wàllum dëpp kees ca diiwaanu Ziguinchor ab mbir mu doy waar nag moo fa daal di am néega ni démb ginnaaw bi nga xamante ne rek zone numéro 5 bu Ziguinchor ñoom nag ñoo daal di dem ginnaaw ab mine boo xamante ne nag benn soldat daal dina koy dëgg dellu yooyee nga xamante ni def katu ñaawteef ñoo ko tegoon di amal ay ndëgg sërëx bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi nga xamante ni rek journal bi daal na koy joxe ñu ngay xam ne nag ne soldaar yooyee bokk nañ ci ñu doon def patrouille ngir daal di xool lépp lu jëm ci wàllum askan ba yeewoo ca diwaanu ko Sikicoor ñu mën a dellu ci seenu pa dëkk dëkkaan ginnaaw bi nga xamante ni nag benn village bu nekkee ca diwaanu ko Misaan Alboni ñoom ñooñee commune boobee dañu kaa daal di daw génn Buumi laata militaire ya di fa dugg bay dëgg ci ab benn ndell mu lëkkalaate ci seenub kaw saa sile tembe nag am na benn soldaar bu ci ñàkk bakkanam ñu wax ci mbirum Barthélémy Diaz ak ki nga xamante ni rek moom moo di maître Moussa Diop maître Moussa Diop mi nga xamante ni nag moom moo nekk ca Dakar dem dikk saa si le tembe moom ak Barthélémy Diaz ñu ngay fasalante ay sikkima dara waralu ko rek lu dox Barthélémy Diaz maire bu Mermoz Sacré-Cœur daal dinay jàpp nag ne littoral bii nii ñu daal di jël def ko seenu ko moomeel te mu nekk alalub askan bi ñu koy tocc bis bu yàlla sàkk te di ca tabax ay ki entreprise ki dëkkuwaay loolee moo fi daal di jeex ndax du seenuk moomeel moomeeluk askan askan bi la waral na nag ba maître Moussa Diop saa sile tembe daal dinay jàkkaarloo ak kii di Barthélémy Diaz fas yéene dem ak moom fa mbaxane doonee benn keneen koo xamante ne yëkki na ay kàddoom di wax ci doxalin wi du kenn ku dul Guy Marius Sagna Guy Marius Sagna mi wane ñàkk àndam ak mbas mi ak ni ñu koy doxalee saa sile tembe ci diiwaanu ko Sénégal dal dinay jàpp nag ni njiitu réew mi saa sile tembe dafay profito di amal li nga xamante ne moom moo di corona comédie waaw ndaxte ay business la ciy doxal ak i marketing di jël ay nitam di leen dugal fa nga xamante ne rek moom moo di ci biir état beeg gouvernement bi mu nga ko xam xamle nag ginnaaw ba ñu ko invité ni dimanche ci émission bi ñuy woowee jury du dimanche ca i rajo waral na nag ba activiste bi rek daal di taxaw yàq lu mel ni xamee état du Sénégal ci doxalin wi nga xamante ne jàppul ne benn yoon lu méngoo ak sarti réew mi la ca waxtu boobee njiital frappe France dégage moom nag mu ngay naqarlu bu baax a baax doxalin wi nga xamante ne njiiti réew mi saa sile tembe moom lay doxalee